maa ngi tudd Mouhamadou Mansour nekk nekk euh, directeur CGA consulting euh, di yëngu ci wàllu lépp lu jëm ci décentralisation ak développement local. waaw fii ñu nekk nii muy commune u Thiès Est euh, monsieur le maire ak équipe ñoo def benn organiser benn formation boo xam ne ci élus locaux yi maanaam ci conseils municipaux yi lañ koy jagleel ci formation boobu nag ñu tànn benn thème. muy lépp loo xam ne jëm na wàllu budget niñ koy tëggee ak niñ koy exécuter euh, moom moo ne woon tey jii li tax ñu daje fi ñaari fan ci ñaari fan yooyu ñu renforcer capacité élus locaux yi ci budget ci niñ koy tëggee waaye te aussi niñ koy exécuter. voilà tem boobu li tax ñu taal na ko parce que euh, ñi nga xam ne ay conseillers lañu dañoo am ay rôle ak ay responsabilités yoo xam ne moom moo leen war ci seen liggéey. te comme ay conseil lañ yoo xam ne jóge fu ne euh, du loo xam ne aussi évidence la ñoom ñu xam liggéey bi nga xam ne moom lañ leen dénk moo waral ñu tànn thème bi nga xam ne lépp loo xam ne moom mooy tax maire yi réaliser mission am wala commune réaliser mission am mooy li nga xam ne jëm na ci wàllu budget nga xam ne outil la boo xam ne mooy tax maire lépp loo xam ne mission la wala lépp loo xam ne mébét la pour mu réaliser ko budget boobu moo mooy tax mu réaliser ko kon donc day am importance ñu former leen ci loolu nga xam ne lépp luñ fa def wala lépp lu maire bëgg a def dina jaar foofu yoon boobu lay jaar pour mën koo def mu amal njariñ li nga xam ne moom mooy askan wi moo waral ñu tànn euh, thème boobu. ndaxte dama dajeek ay conseillers municipaux yoo xam ne euh, xaw am nañu expérience tuuti. ci mbir mi daanaka sama liggéey ñoom ñoo ma ko yombalal ndaxte mën naa wax ne cadre de change la woon entre man ak ñoom te boo xoolee la ne woon objectif ci formation bi muy ñoom ñu xam yoon yi nga xam ne moom la ñuy jaar pour tëgg budget muy processus d'élaboration bi waaye xam ko rek amul solo mais xam lan moo ciy sa taxawaay moo ciy ëpp solo mooy seen rôle ak seen responsabilité ci wàll bu nekk. fu ñu toll ci budget bi lan lañ ci war a def ak lan lañ leen ci yoon may ak lan lañ leen yoon mayul muy lu am solo bi ci mujjee tamit mooy ci objectif yooyu mooy ñu am xam-xam pour mën a tëgg budget boo xam ne day méngoo ak bëgg-bëgg askan bi loolu muy lu am solo te gis naa ne bi ñu ñaari fan yi nga xam def nañ ko formation bi gis naa ne loolu ñoom danga koy gis ki seen i kanam que ne ñoom ñii bu ñu jógee fii ñoom dinañ préparer ñu ngi ci préparation session budgétaire yaakaar naa budget bii ñëw dina xaw a wuute ndaxte ñoom am nañ ci euh, xam-xam boo xam ne dinañu mën a def budget bu baax boo xam ne dina conforme euh, dina conforme maanaam dina méngoo ak li nga xam ne moom la population Thiès Est bëgg. waaw ci ci li nga xam ne tukkee na ci nga ki nga xam ne mooy Omar Mbub yore ñu dénk ko lépp lu jëm ci formation gis nañ ne am na yeneen formation yoo xam ne wax na ko sànq ci biir formation bi que am na yeneen formation yoo xam ne dina ñëw ci yeneen fànn yoo xam ne dina tax. ñu tàggat leen ba ñoom ñu gën a xarañ ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñu leen dénk ndax mu am réussite. Euh, ci xayma conseil yëpp la waaye ak yenn parti ci personnel bi mais gis nañ ne am nañu absent donc plus de soixante dix personnes formé nañ leen ñi nga xam ne ñoom ñoo teew démb ak tey soixante dix personnes yoo xam ne teew nañ ci ko ci ci formation bi. loolu objectif bi te yaakaar naa ne incha allahu rabbi wax naa ko sànq budget bi nga xam ne ñoom ñu koy préparé nii dina wuuteeg loolu ak yii di passé ndaxte ñoom. jox tàggat nañ leen noo xam ne dinañ teg budget boo xam ne dina baax ba population bi gis ci seen bopp mu doon mission boo xam ne moom lañ leen dénkoon. waaw ñaari fan yi nag xaw naa gaat tuuti mais lessance li ñu soxla yëpp am nañ ko donc yeneen formation yi mën na ñëw yëpp parce que lépp ay day complété par exemple am na yeneen formation yoo xam ne day ñëw mëttali bii nga xam ne mooy formation bi ba lépp li nga xam ne soxla nañ ko rek ci wàllu li nga xam ne ñoom la war a soxla pour ñu war a réaliser seen mission yi rek dinañ ko am incha allahu rabbi. maaleykum salaam sëñ bi voilà man euh, maay Omar Mboup nekk euh, adjoint au maire à la commune de Thiès Est donne aussi le président de la commission formation et planification de la commune. je pense que lii dafa bokk suñu feuille ndax euh, ay éli lañ askan bi tànn nañu pour ñu toogal leen fii di leen di nasal di leen di noccel loolu nag soo koy def dafay jaadu nga xarañ ci liñ la dénk looloo tax. Euh, lii ñu prévoir ko ay formation ay renforcement de capacité euh, donc daaw amoon nañ lu mel nii waaye ren it gis ngeen ko euh, ñëw nañ formé wu ci thème bi nga xam ne le formateur le consultant mu ngi koy expliquer muy gestion budgétaire. comme ni ko gisee def nañ formation ñaari fan voilà si ñaari fan yi je pense que ku fekkoon débat yi di nga gis animation ak enthousiasme. maanaam lépp loo xam ne dafa euh, soxal budget te nga xam ne ñun ay fan yu néew dinañ dem ci votu budget boobu je pense que jaadu woon na amal formation bi mais gis nañ ne nit ñi intéressé wu nañ formateur bi mu ngi wax léegi on a formé soixante dix personnes donc nga xam ne formation bi soxal na élu yi ñëw nañ en masse participer si débat yi formé wu nañ ñaari fan yi yëpp. je pense que loolu rek la moo doon suñu mission donc par rapport à ça. waaw waaw waaw soo seetloo euh, série de formation la avant avant lii ñuy former éli yi nii euh, semaine bi passée on a formé euh, les commissions de fiscalité locales des trois communes Thiès Est Thiès Ouest Nord gannaaw loolu ville amoon nañ pour vous dire que continuité la foofu noonu da ngay gis ne. Euh, commission yooyu bu ñuy former c'est pour mobiliser les ressources les ressources financières et cetera parce que gis nañ ne bu ñëwee am na communes yoo xam ne surtout fii si Thiès Est dañoo xaw a lott tuuti dañ naan fii moom <laughs> daanaka mooy banlieue Thiès bi moo ëpp ci ci commune Thiès yi. mais gis nañ ne en matière de budget moo ciy gën a néew budget bu ñëwee rek dañoo song yooyu nga xam ne dinañu permettre ñu mobiliser le maximum de ressources pour que projet programme yi ñu am ñu mun leen réaliser. formation bi sa entre dans le même sens nga xam ne buñ paree tey gis nañ gestion budgétaire nañ la ñuy tëggee budget waaye ci loolu nan lañ ci lan moo ci suñu taxawaay ñun éli je pense que Tagotunen, Monsieur 6, il l'a bien fait avec son équipe. je pense que les témoins sont là donc par rapport à cette formation. Euh, il y a projet. Parce que léegi maa ngi koy wax bu ont été ne lii euh, daanaka dañoo tàmbali rek waaye suñ la dénkee donc alalu askan bi ak li askan bi moom foog nga tàggatu am xarañteef boo xam ne moo lay permettre nga def gestion boo xam ne dina méngoog liñ la dénk looloo tax à la suite de cette formation dinañ amal yeneen yeneen yeneen formation maa ngi wax léegi commission yi ñu ngi leen di ñaan képp ku ci am gis ne dañ la war a renforcer sa capacité na nga ñëw donc ci commission bi de la formation nga déey ko dinañ ko jël en charge former la ba nga xam ne dinga nga xarañ si sa wàll biñ la dénk incha allah.